ilaha illallah la ilaha illallah bay laay bay Abdu ne alaa ilaa bal jalla jalla loo Mamadu yaay bay laay laa Abdu ne alaa ilaa bal jalla jalla loo Mamadu yaay bay laay la ilaha lanu yónnee la la adduna yaxlu bay di rasul bay laaya yi maam seen maam lanu yónnee la la la adduna bayran yaa baax Abdoulaye Thiaw yaa baax maam la nu yónnee alaa bay lay yaa bi ci yoom ma di alaa bay lay yaa baay elbitiyo madiyola alawa mamailai tobi kumbalo yaijitiyo madiyola alawa bailayaba yayonen bitiyo madiyola alawa mamailai tobi kumbalo Yoff maa di yoolaay yaa yónneen bi ci Yoff maa di yoolaay te de lool dina yaa yónneen be laay laay te de lool ma dina yaa yónneen be laay laay te de lool dina yaa yónneen be laay laay yonen be lay lay lay te de la matino ya yonen be lay lay lay lay te de la matino ya yonen be lay lay lay te de la matino mo yonen be lay lay lay te de la matino ya yonen be lay lay lay te de la Ajibo Ajibo Ajibo ne laay la fi wax mooy yónneen be laay laay Ajibo ne laay la fi wax bay la yónneen be laay laay Ajibo ne laay la fi wax mooy yónneen be laay laay Ajibo ne laay la fi wax bay la yónneen be laay laay Ajibo ne laay la fi wax mooy yónneen be laay laay Ajibo ne laay fi wax bay lay yoon lay lay te de lool seyde ya moom diwaan lay lay te de lool moom seyde ya moom diwaan lay lay te de lool seyde ya moom diwaan lay lay te de lool moom seyde moom moom diwaan lay baayam du lay du lay tëdde lool man ku la way am leer laay laay baayam du lay tëdde lool gëm ku la wayam leer laay laay baayam du lay tëdde lool man ku la way am leer dëgg laay tete lool gëm naa ku la wayam leer laay baay Abdoulaye tete lool man gëm naa ni ku la way am leer laay laay baay Abdoulaye tete lool xalifa weetal nga noo laay laay baay Abdoulaye tete lool xalifa weetal nga noo laay laay baay Abdoulaye tete lool xalifa weetal nga noo laay laay baay Abdoulaye tete lool xalifa dulaay ibnu roo walaa isaa noo ngi lay ziyaar alaay tabarakallah masala baay abdulaay aboy ah, ah, ibnu roo walaa isaa noo ngi lay ziyaar abdulaay tabarakallah masala alaay abdulaay yaay ibnu roo walaa isaa noo ngi lay ziyaar alaay tabarakallah masala baay abdulaay aboy ah, ibnu roo Isa nongi Alaaji Abdoulaye tabarakallah Alaaji Abdoulaye yaay imnu ro wala ida nongi lay ziyaar Alaaji tabarakallah ma salaam Baay Abdoulaye aboy imnu ro wala Isa nongi lay ziyaar Alaaji Abdoulaye tabarakallah ma salaam Alaaji Abdoulaye abu kuy sa maam Rasulullah noo ngi lay ziyaar alaay tabarakallah maasallaa baay Abdoulaye yow kuy sa maam Rasulullah noo ngi lay ziyaar baay maasallaa alaadi Abdoulaye abu kuy sa maam Rasulullah noo ngi yow kuy sa maam Rasulullaay noo ngi lay ziyaar kuy sa maam Rasulullaay noo ngi lay ziyaar alaay tabarakallah masala bay Abdoulaye aboy kuy sa maam Rasulullaay noo ngi lay ziyaar siduna limaamu laay anta sayyidil awwaliina سيدنا الإمام مولاي أنت سيدنا يلا بور بي نينا موما الأنبياء نينا موما مسلين نينا موما مام الإمام يوني موما gayi wóolu leen ne mooma ñun de wóolu nañu ne mooma bu ko bañ alku mooma moom doy li maamu laay bas ba na gaañu gëm ñë ñëpp a teen gis jëmam jë sikuwul ni moom la eesa mi doone imam ni maamoon abdoulaye abi balaay doomi seydi loo walaaye ku ka gëm la muhammadu rasulullah la ilaha illallah la muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu فيكم والد الكرم المادي المنتظر إمام من ياتي بل يا رسول الله سما والده إمام خوميمي ذا اسم نادرة xabla na diraati mbay laa yey rambu jam yi xamdan loo bi tunuy shamsi mahribana faraad laylan baada zulumaat njaala doomi maam kumba ndooy jëf yow ma zakki شعبان الشهر بي أوها إلى سما إلى خلافاتي جمي عبد إمام يا أم الخلق كلهم بايلاي في موغف العشر لا فيهم خلافات suma yuhaddisi ibnu xaali daawuda nooy inda riyaadatu xamsaan mahal imami fi asasin baada maghrib kaana bab asaw fi laylati lahdi min rabbi samawaati mu nga naan anaa rasulun ay way jam ñi bàyyi lay neene ana rasulun ila saqalayni shamla umo hmm. mam li maamu ujaadu di diina taw an bi risalaat bay laa yor mu jang yi dakaaru yu baladan yoo فكانوا سيرة خير سيرة بسم الله ma way way wu jëm ci di lay bégal sama way yow sotub yoneen am nga dem di Sëriif Abdou Faxal bu doon wa nooru bu nooro xaleelu rabbi Baay Laay ma door way wu jëm ci bëgge sama way yow la leer ya baawaan ñu gëm dinaan te du je jindu mas si dunde yo am nga labu ni sëriñ ab du faaxal bu doo wa nooru bu nooro xaliilu rabbe yoko ca kaw sunu yoneen ba mu woote fa màkkal islaam aji booday mooy ndawal borom be am nga labu ni sëriñ ab du faaxal bu doo ونور من نور خليل ربي waaw kay ñu ngi ñu ngi jéggaluwaat dañu bëgg a Moustapha tuuti rek léegi sa ngay egsi dañu bëgg a donte sax waxoon nan ko waaye xam ngeen ni bàyyi laay kenn du si doyal sànq leer wax nanu leeram bu saf boobu muy libaasalaay rasoolulaay boobu laa bëgg sëy naa ñag ñu mayaat nu ko tombeek sangay di egsi nag ñu door a duggal allahu akbar ma bëgg ñu gën a feddaliwaat sunu taxawaay feddaliwaat sunu toogaay xam ni bis bi bis bu rëy la ci ñun bis bi nga xamante ni ci la bàyyi laay taxawe woon wax waxam ju rëy jooju ba nga xamante ni maam yi gàddaay ñépp a gàddaay egsi kon ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla faj aajo yi yal yàlla teggi tiisi yal yàlla saafara jàngoro yi bis bii daal nanu ko gën a delloowaat ñu tawxiid lool su ko defee loolu laa bëgg mbooloo mi yëpp boobu ba tey dama leen doon noppal rek may gaay yi ñu kii rek waaye ni tàmbalee suba ba tey depuis sept heures ba tey yaakaar naa ni si kar si macha toogaay bi yàgg na waaye kenn yëgu ko ndax si kar su neex yal na yàlla fay leen waaye nag nga nga defaat defaat mu gën a neex dara nekku ci maa ngi ñaanaat daayira yu góor yeeg yu jigéen ñi dama bëgg a xool ndax yéen a ngi ci bërëb bi wala nekku leen ci bërëb bi dama ne ku yaakaar bàyyi laay àddina ak alaaxira yëkkati sa ñaari loxo ma xool ku yaakaar bàyyi lay àddina ak alaaxira laa wax yëkkati sa loxo ma xool seen ñaan ak libaas laay rasul رسول الله ما إله مباح ما إله ولا ilaay mu baax nañu wàcc micro bi ci jeex na ba pare sagal leen bàyyi laay ci yoor yoor bi naka ñëpp wax rasulullah baylay mubah maylay ba yaa moom diwaan borom yama nay la bara la lay la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la la la أو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا la ilaha illallah la laay laay walaay laay laay la laay laay la laay laay la laay laay la la la la la la la ilaha illallah la ilaha لا إله ولا إله إلا لا إله إلا لا la la la ngir ñu a li nga xamante ne nii moo di wooteeg maam Limaamu Laay fàttaliku woote bi fi la taxawoon ne aji boo daay si Yoff te yor-yor bi moo koy mandarga ren di téeméer ñeent ak ñaar si woote bi. jërëjëf soxna si ñu ngi fii ci Jàmmalaay mbooloo mi yëpp na macha allah foo sànni mbàkk mi pàccoom ni ñu koy waxee ñëpp ngi sol ay yére yu weex sang yi nekk si nañu euh, maa ngi. Médoune rajo Jaamalaay FM ak euh, Nourou Mouridi ñuy taxawee ngir feeñal rek ay it ngir wàññe li nga xamante ne mooy cent quarante dixième appelu Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wa salaam